asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi rek ba léegi ñu ngi ànd ak yéen fii ci quartier général bu Touba ca kanam Nour Daara ni di suñu village bi nga xam ne lañ def suñu exposition bi jëmee ko ci li nga xam ne mooy liggéey bu mag bi nga xam ne Touba ca kanam Nour Daara ni mi ngi koy amal ci dëkk bu sell bi di Touba. yàlla dogal nag euh, kenn ci kilifa yi nga xam ne euh, ci doomi daara la bokk bokk ci sëñ daara yi euh, yor kuréel gu mag. ci yoon wi waaye bokk ci borom xam-xam yi nga xam ne it euh, bokk na ci ndaw yi ñu yaakaar ne bu ëllëgee li mag ñu yore woon ñoo ko war a yore euh, ñu bëgg ko laaj rek sëriñ El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi euh, ginnaaw bu ñu la siyaaree ba noppi liggéey bu mel ni Touba ci kanam. yan kaddu ngay dénk mbokk taalibe yi ci projet bi ak yan taxawaay lañ ci war a am surtout nag borom xam-xam yi. ci la ko daal ci jawriñ ji sëriñ Habibou moom Cheikh Amadou Fadel ak mboolem yéen ñi nga xam ne yéen ànd moom ci liggéey bi ñëpp. Eh, di leen ndokkeel ci tawféex gi nga xam ne yàlla def na ko eh, di ci ndokkeel murid yëpp waaye yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla xéewal leen ngeen di saytu liggéey bu am solo bii. ah Touba Ca Kanam nag eh, nekk na loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala ni ma ko waxee sànq moo ci def tawféex moo ci def xéewal ndax muy xalaat bi muy nit ñi nangu ko nangu waaye nag muy tàmbali gu mu tàmbalee woon ay firnde ci ay liggéeyam. ndax bu xalaat bi rafetoon lu mu rafet rafet ay ay ay ay ay ay xalaat rod na fi yoo xam ne rafet nañ trop macha allah waaye bu ënt ak pësteef bu dëggu dana jafe ngir mu mën a dëggal dara pësteef boobu nag bu nekkee ci xolub ñi nga xam ne ñooy woote way yu dégg yi dana yomb ci ñoom ñu war a wuyu ñaare ña nga xam ne nag dañuy dañoo yàgg a gis ñu yàgg a woote yàgg a gis ñu yàgg am xalaat yu rafet mën nañuy tekkandiku waaye li ngeen tàmbali wone tax na ba ñoom ñëpp seeni i xol daal di tàmbali nangu loolu lu ci am solo la moo tax projet yu mel noonu jërta jërta yeexe ci wet yi ngeen di taxaw wala yi ngeen di taxaw yëpp dafa nekk yoo xam ne yuy jariñ askan wi la ba kon du mën a def lu may e, sensibiliser nit ku nekk am na ci rôle bu rëy ñun sëriñ daara yi jàngalekat yi xutba yi ci imaam yi ñu mën a doon am nañ ci rôle sensibiliser nit ñi xamal leen njëriñ lan la Touba ci kanam làmboo loolu dafa jaaru jaadu nañu yar ci suñu ndaw ñi ñu nekk ci daara yi te yar leen ko ñu màggaale ko ñu xamee ko nga xam dañ koy dañ koy màggaale xam ne ñoom seen génération yii ñëw ñoom ñoom war nañoo jàpp jàppin wu gën a yéeme wu gën a am solo bu ñu ko judduwaalee noonu xalaat bi màggaale ak moom ñu leen di won firnde yi lépp lu Touba ca kanam def ñu di ko wane ci daara yi di ko exposé ci daara yi di ko exposé ci école yi école franco arabe yi école arabe yi école yu mën a doon ñu di exposé ndax ñu xam ne kat lii ay liggéey la du ay waxi kese ndax loolu baax na lool ñu xam ko loolu nag rawatina nag ndaw ñi bu dee ci xutba it noonu euh, jumaa yi euh, baax na lool jaadu na lool ñuy jagleel nit ñi orienté leen wan leen ci li nga xam ne mën na leen amal njariñ ca muy bunt yi nga xam ne Touba ci kanam am na ko euh, da ngay xalaat ne sa benn sa benn mille francs boo xam ne def nga ko wala sa 12000 francs yoo xam ne def nga ko ci at mi participer ci dunduk mbo ay mbooloo participer ci volet yu bokkul yoo yéene woon ngaa tabax hôpital yéene woon ngaa dundal aw nit ñu jaaxle yéene woon ngaa solal aw nit ñu tumuranke yéene woon ngaa defar euh, bale dëkk bi yéene woon ngaa pomp dëkk bi yéene woon ngaa yëngu ci volet bu ne nga yéene woon caa yëngu sa benn douze mille francs tasaaroo ci volet yooyu yëpp mu mel ne yaa tabax hôpital ba nga xam ne da ngay gëm ne yow tabax nga hôpital gëm nga ne ci dundu askanu askan wi ci wàllu xam ci wàllu yar tabax nga daara ya yow yëpp lu ne nga participer ci ci benn douze mil francs lu lu lu am solo la lu mat a bàyyi xel la kon 1000 francs 1000 francs yooyu buñ ko xeeb ndax saa xamee ne def nañ ko lim fi muy fi muy dugg fa dafa rëy dafa am solo kon maa ngi ciy sensibiliser ñëpp rawat na ñi nga xam ne ñoo jonjoo ak mbooloo yi. jërëjëf sëriñ El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi am nañ ci yow mbégte bu baax a baax tey xaar nag yeneen borom xam-xam yi comme ni nga ko waxee ak sëñ ci ne liggéey boobu buñ ko defee li muy juralaat rek mooy li ngeen bëggoon yéen mooy yar nit ñi jàngal leen ba ñu mën a dund seen diine dafa mel ni Touba ci kanam jóg na ngir ànd ak euh, mboolem suñ daara yi gis nañ lu mel ni daara yi daaw def nañ 32 daara yoo xam ne dañ ko dañ ko jàpp ndalal seen liggéey ren 71 la ñu jël def ci lu war a mat 75 millions loolu it yaakaar naa suñ daara yi war nañ bàyyi xel ne lu mel noonu daf leen di jàppale ci liggéey bi sëñ El waaw lu am solo la lu am solo la ndax dafa bokk ci projet Serigne Touba radiyallahu anhu daara Serigne Touba moom mm, ay projet am da bokkoon jàng ak jàngale bokkoon ci projet yi gën a rëy Euh, daara nekkoon yitteem yu gën a rëy moo tax wax naa ko fii euh, ci waxtaan wi ma doon def New York man leen euh, Touba ca kanam doon naa Touba kanam day doon naa dégg waaye nag fii nii damaa gis bu baax a baax dama gis mooy leen mooy sama secteur bi ma nekk muy daara ndax dama doon wax ci sama wen way ne daara laa am daara laa xam daara laa gëm jàpp mbaa ba loo ma ci dee def ko daara man leen gis naa ñu liggéey ci liggéey boo xam ne ku ma laaj ma man leen mi ngi nii te lu am solo dafa bokk ci li gën a am solo ci ay taxawaayam mooy nit ki mën a sukkandiku ci boppam. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daf ko daan wax. dana wax ne na ngeen di euh, moytu waa xur wii na ngeen moytu ñu sañal leen ndax ku leen sañal mënal leen ci yàlla nañ kera war a sañal yàlla nañ kala war a euh, sañal. mat a bàyyi xel pour nit ki nag mën a moom boppam moom autonomie mu am ci ci ay dundam ci doxinam ci léppam. faaw mu sukkandiku ci boppam ca yoonu murid nag foofu la toll kon yéen wane ngeen ci yoon woo xam ne bu ci murid yëpp bu leen ci buñ leen ci wuusee dootuñ sukkandiku ci kenn dootuñ sukkandiku ci état dootuñ sukkandiku ci lenn ca seen projet yi nekk seen kanam yëpp danañ ko mën a defee na mu gën a rafete na mu gën a baaxee ci lu dul benn coono ndax du du coono du métit ay mille francs du métit eh, sëñ bi mbokk yi li ñuy connecté li ñuy connecté ci ci ci ci ci par jour kenn xamul nu mu toll kon bu ne laaj mille francs par weer mbokk yi war naa mën a war naa war a mën a woyof ci yow même bu doon tey gis nga ne jàpp nga ne ak wut ci yow sax nga jariñ benn doomu aadama ci sa alal lam la jariñ sa dunduk àdduna ak sa dunduk àllaaxira ndax yàlla dafa fonk jaam yi loolu lañ ci wax kon ñoo ngi leen di ñaanal bu baax yàlla def leen tawféex yàlla jàppal leen yàlla def leen kattan ba ngeen ko yéenee lépp mën a sotti ba mbeddi Touba fu ngeen jaar mu nekk ay tali nekk assainissement ba jaar ca yoon lamp yooyu mel na war a mel dundu dëkk ba yëpp nen nañ lool nam na ko Sëriñ Touba waxoon mu mel ne turam ba ñëpp nekk Touba di yëg ni ñoo ngi Touba yàlla ni ko yàlla defal tawféex asalaamaaleykum